accident bu métti moo am sa yoonu bu Touba ci dëkk bu ñuy wax Sarsara lu ñu nemmeeku ci kaw tali bi mooy ay woto yu bari yoo xam ni dañoo yëpp ay bagage ba fees dell am ci sax ñoo xam ni dañoo ngiro ci yoon wi si accident ba nag métti na loolu ndax ab kaar moo saaraan dara mbëkk ab woto bu ndaw ci fi muy tolloog doodaan bi woto bu ndaw bi nag ma nga yàqu yaxeet toj mbokk rumbax ña nekk ca kaar ba moomu ñoom ñëpp ñoo am ay gaañu gaañu yu métti métti ba ñu mujj leen rawale dara li waral accident bi mooy chauffeur bi dafa doon whatsapp ba fàtte ni tollu na ci doodaan bi waral mu saaraan indi musiba maa ba kumba bile lii de la maama daan wax naan bëddu yenu waaye xam na lu mu àttan gaa yi ñaan nañ leen rek ngeen daw nànk dal nànk ba yegg Tuubaa ci jàmm ak salaam